وسل أبدا على الذي به لنا هدى أبدا الحمد لله وسل أبدا la abada asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi safoo seen site bii di 24actu ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal ci topp ak bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel seen site bii di 24actu comme niñ koy baaxoo di defee saa su ne tey nag seen émission bii di daan doole ñëwaat ak yéen fa yéenee ànd ak yéen ci képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci dara ak lu man di doon tey nag ñu dikk fii ci marché Ocass buntu kër Sëñ Mahmadan fekk si koo xam ne macha allah mi ngi liggéey ci wàllum dawar sareet euh, am ci expérience bu baax a baax nekk waxtaan ak moom. Seydina Ousmane Sall ñoo ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog mbokk internet yi. ñoo ngi leen di ziare baax te di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi nag sëñ Muntaxa di ñaan suñu borom guddalu fanam te li cëram te li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi Serigne Touba may ko kartan gu ko liggéey te ànd koog mboolem talibe di ziare képp kull koo xam ne sii rek yàlla dogal na yaa ngi yëngu ci saret daan doole ci saret ak foo mën a ne ci ci Sénégal surtout nag Touba foo mën a ne ci Sénégal surtout Touba képp ku yor saret di ci daan doole ak saret bu mën di doon muy saretu fas wa wala saretu mbaam bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziare te di leen jox seen wàccuwaay macha allah ci nuyoo bu am solo boobu nga xam ne jagleel nga ko téléspectateur yi waa site bii di 24actu xam naa nag dañ lay bàyyi nga wax kan mooy Seydina Ousmane Sall boo doon wax mbokki internet yi kan mooy dina Ousmane Sall lan nga leen di wax. Ah, man maa ngi tudd Ousmane Sall dëkk Touba ko Khoudoss di taalibe Serigne Ousmane Mbacké Gaynde Fatma di nit koo xam ne si itam bari na ay jaar-jaar ndax euh, jàng naa alxuraan muritu naa ci daara yi door a ñëw nag commencé yëngu ci saret kon mel na ni tim jaar naa ci école tim ba bi ma jógee ci école nag aussi jaar naa ci commerce jógee ci commerce nag door a ñëw dugg nag ci métiem saret boo doon wax kañ nga dugg ci métiem saret ak lan moo la ci dugal lan ngay wax mbokk yi waaw métier saret nag li ma ci dugal mooy bi ma ciy dugg yàgg na parce que man maa ngi ci dugg diggante 99 à 2000 bi ma ci dugg tim passion bi moo ma ci dugaloon maanaam gis ko bëgg ko nekkoon aussi ci daara xam fas xam saret jóge ci daara ji nag ñëw ci dëkk bi xool ni ginnaaw jóge naa ci école bi te xay na commerce bi dugg naa ci doxul loolu moo ma dugal ci saret bi ma dugalee ci saret nag damaa ñëw ci marché Ocass euh, nekk ca. biir marché bi fii ñuy wax tey marché forot foofu laa njëkk a nekk di fa dawal saret ànd kook samay xarit ak ñoo xam ne nekkoon nañ fi waaye booba sax problème mu garage ñuy wax amut booba dañuy daje rek ku mën a fexe ba yab yab dem waaye jamono yi nag côté boobu la nekkee woon fi leen féete woon di fi liggéey. macha allah bu ñu la déggee dafay mel ni yow euh, yàgg nga ci li nga xam ne moo di méccam sareen mi kon euh, bu ñu doon la laaj tey yan jafe-jafe nga xam ne dund nga ko ci lan nga ñuy wax. saret moom jëmm ji dégg gi rek soo ko déggee daanaka nit ñi dañuy defee ni mbir la moo xam ni ay jafe-jafe ko làmb am na ci nag mais bariwul ndax mbir la moo xam ni liggéey la comme liggéey yëpp bari na tam ñuy wax ci biir sart ni du métier d'accord du métier ndax ku ñëw ku ne man ko ku ñëw ku ne am njëgu saret am njëgu fas mën a dawal man ko mais lu mu néew néew da nga ci am expérience mooy tax nga man ko ndax boo amul expérience bi yàggoo ci doo ko man wala bala nga ko man di nga ci sonn wala da nga ci def ay dégâts kon saret ku la ni yomb na ku ne daf lay nax parce que bari na ñu ne wax tey ñu ne ci oto yi mhm. doon ay chauffeur jaar nañ ci saret jafe na nga gis ko dawal oto wala mu am permis wala mu qualifié ci oto te jaarut ci saret kon saret man na ni buntu la pour boo dee dem ci transport urbain bi wala interurbain bi wala nga doon nit koo xam ne da ngaa bëgg a yor sa oto jaar ci dana baax ndax dana da nga ci jëlee expérience bu lay may li nga ci bëgg a def nga mën koo def ndax mbir la moo xam ni yomb na nii ci ci ci ci ci gis nii mais lu jafe la te aussi lu am solo la nag lu am solo la parce que lim li muy li muy généré moo bari tey boo xoolee Touba da nga ci mën a xam ni bu jeunes yi doonoon cent pour cent da nga mën a xam presque ni cinquante pour cent yi ñu ci ëpp ci Touba ñu ngi ci saret bi soit nga ñu ne ci sareti mbaam yi wala ñu ne ci sareti fas yi loolu ku la ni amul njariñ wala amul lu muy jariñ nit dafay dafay juum kon mbir la moo xam ne daal li muy jariñ doomu aadama bari na mën naa dimbali tim nit koo xam ne xëy na amul métier wala qualifié wut ci métier te suñ borom dimbali ko mu war bëgg a yoru njabootam xëy na bu ko yàlla dimbalee ba mu am ab saret te sàmm ko fonk ko te def ca la mu ca war a def mën na cee saafara ay ay besoin macha allah euh, am na solo lool mais comme charette est ce que tamit yomb na amoo fas ak loolu est ce que yomb na ndax euh, fas yomb na pour jënd ak yooyu noonu. xëy na fas ca ba ni door a tàmbali yombut woon. waaye fas moom ndaka jekk moo doonoon élément boo xam ni laata oto di am moo fi nekkoon boo gisee oto sax am na yenn yuñ ciy wax yoo xam ni moom tubaab bi ko liggéey ci fas la ko jëlee parce que boo demee ca biir oto am na moteur am na ci biir bi yoo xam ne ci fas lañ ko jëlee yooyu kon moo lay xamal ni fas doonoon na mala bu am solo ci nit buur yu njëkk ya sëriñ su njëkk si nit ñu baax su njëkk si ñu ci ëpp koo ci gis fas la daan yor kon fas ndaka jëkk daa doonoon loo xam ni suñ borom a ko wàcce teralal la ko doomu aadama ndax ca jamono yonent ba léegi fas mi ngi jëf di def li mu war a def à tout moment loolu nag bu amee day day day day mala boo xam ne day mala bu jara fonk day mala boo xam ne mënta yomb day mala boo xam ne loo ko def te tegoo ko ci yoon da nga ko gis ndax dafa yàgg liggéeyal ñu baax yàgg def lu baax kon fas yombul mais da ngay gis ñoo xam ne tey jii ñoo ngi ciy liggéey mais àq ji nga xam ne war nañ koo matale ci fas wi duñ ko def moo xam ci wàllum xont bi wala wàllum lekk gi wala naan gi lañ ko war a xont dëgg-dëgg duñ ko duñ ko def loolu noonu noo ko gisee ak xale ndaw yi nga xam ne duñu tocc xottu neen daal di jóg rek daal di dugg ci sareet est-ce que loolu tamit jaadu na. xam nga fas bu njëkk mën nga ko jóg yor ko mais fas léegi yombatul ba ba ba nit ko yor ba war ko mën a yàq ndax boo ko yàqee dootoo ko am. ginnaaw fas lu mu néew néew ak lu mu néew néew doole prix mi ngi ci 400000 500000 ba 600000 presque mën naa jënd ab réem kon doonut lu yomb te saa soo ko yàqee ba ba ba mën ba ba ñàkk ko dootoo ko gaawatee am kon mbir la moo xam ne képp ku ko yor am ko na ko fonk te di ko taral àq nag la ci ngay wax xëy na ki ko xamut moo koy teg xëy na ki xamul àq mooy jël àq di ko teg fas ndax fas nag ku ko teg àq gis ko gisoo kenn ku yàqu fas dëkk ci di ko yàq nga gis ko di ko ñee fas yëfi suñ borom la bu suñ borom wàcce la boole kook doomu aadama mu di ko liggéeyal doomu aadama bi koy liggéeyal nag ni mu fonke boppam bëgge boppam noonu la war a bëgge fas parce que organes yi ne ci nit mooy organes yi fas yor fas nit ñoo yam amul lenn lu mu wute li muy def la nit di def fas day sangu fas day lekk fas day naan fas day tëdd fas bëggut lu salte bëggut lu bon loolu lépp mi ngi ci fas jamono jot nag saa soo ko utiliser nag ngir dugal ko ci domaine yooyu ci ngay gis ñu naan la fas yu daa yàqu mais fas boo ko defee ni sa bopp yow mi ko yor nga xam ne yow da sangu ba set xool lal bu set nga tëdd ci bëri ñoo xam ne tey dañ koy yor di dóor rek ba am ay góom ak ay façon yooyu yëpp boo ko defee bu njëkk la ëpp la ba la gënoon a bari mais fi ñu toll nii vétérinaire yi jël nañ seen engagement am na yenn fas yoo ne boo ko defee Touba vétérinaire di la carte di la téye mais nit nga dul yabati dootoo ko mën dootoo ci mën a liggéey. Ah, ndax am na ñoo xam ne ñoo xam ne loolu la ñuy wër pour ñiy gaañ fas yi ñu leen di teg ay daan. est-ce que am na ay daan vétérinaire boo gis muy wër na ci dëkk bi saa su sa gisee saw fas mu ni mu war a mel. mu mu la problème te bu la créer problème état moo moo jox moo joxe décret boo xam ni fas dañ koo war a fonk di ko toppatoo dafa bokk ci règlement Sénégal dafa bokk ci décret bu Sénégal di doxe ci nun mën a sàmme jur boo demee élevage am na fi jur dañ ko war a sàmm ni ngay sàmme sa bopp jamono boo ko tegee lu jaaduwut boo dajeg ni ni saafara loolu ñu saafara ko mais dangay gis am na ñoo xam ne tey jii bu fekkee ne cinq personnes lañu war a yab bu ñu yabee ci garage bi ba pare dañuy génn tuuti rek ci kanam gis ñaan ñu war a dem ñu si chargé ko est-ce que loolu tamit jaadu na boo xoolee saw fas di ko xont ni nga ko war a xonte loo romb bu la neexee mën nga koo yóbbu ndax dooley fas àgg na foofu saret bi fukki ni dong nga ci yàpp mënoo koo weesu boo ko weesoo dangay ngay tegale nit mais fas mën nga koo toppatoo ba bu la neexee mën nga cee teg deux tonnes wala une tonne cinq cent xam nga ni kon loolu nit mënta am poids ba nga yebi nit ba mu àgg foofu ca na ngay toppatoo saw fas la fas boo ko xontee loo ko laaj mu jox la boo ko xontee mi ngi mel ni nga teg fi saako pepp rek soo ko duyee ba mu fees saa soo soxlaa sàkk mais soo ko duyut booy sàkk da ngay wut pot bi nga yor di ci wëndeel ndax peppa ngi ci wala néewu ci. mais xam nga ne am na ñu ci ñàkk tey ci seen dund am na ñu ci ñàkk ay tànk ndax maanaam da ngay yëg ci benn sareet dañ ko war a xale bu ndaw yoree ko daane leen ñu damm ci wala ñu amee ci ay laago tey ji nga xam ne euh, laago yooyu noonu ñu ngi ko jëlee ci daan daani sareet wala daanu daani euh, sareetu mbaam ak bu fas yëpp. xam nga accident moom ba suñu borom sàkkee transport rek la ko booleeg accident accident moom du oto rek ko koy def lépp lu yëpp ay nit di ko dawal accident du ca mën a ñàkk. mais ñu bëri dañoo ragal di dugg saree ndax ndax daan daan yi ñuy def. du ci dara ndax euh, li nga yor nii mhm. ay yére dong la yoo takk buuma ki yoo dajale takk ko ginnaaw machine la ñuy liggéey ba mu ne cocc ñu teg ko ci autoroute mu daw ba yàgg ni këlëb këpp ndax am accident am am effet ci moteur wala dara bi daanu. waxuma laa nag ay yére yi yuñ defar dong takk dégale ko léeg am na accident yoo xam ni dogaluk suñu borom lay doon. waaw euh, bu may ma ma ñëw. dafa am accident yoo xam ne dogaluk suñu borom lay doon. dogaluk suñu borom nag kenn mënu ci dara. Mm-hmm. dogaluk suñu borom kenn munu ci dara. ki xëy takk saretam bii génne këram bàyyi fa njabootam bàyyi fa ndey bàyyi fa baay fas yéene yor saret bi yor leen ci ñoom ñooñee xëy a këram ñaan def soog ñaanul daane nit ndax fi mu toll ni nit koo ci daane wala nga gaañ ko dalay tardeel benn mooy dootoo dem ba ko fa te fu di fajo da nga ànd ak moom te lu muy fajo loo ca man da nga ko ca def kon xëyewoo sa kër ngir di ñaan di def soog wala nga def accident ci biir gone yooyu ngay wax mbir la moo xam ni képp ku doon responsable yoru sat ne ci dëkk bi neexu la sëriñ bi moom dëkk bi neexu ko mais nag dafa am loo xam ni problème mu civil la civil du régler problème boobu problème boobu problème mu autorité la autorité ñoo war a jël seen i responsabilité taxaw ci moins de 18 ans yi ñu jóge ci sare yi kon loolu du man du keneen ku ko mën a saafara man nga na xëy na sa biiru garas nga ni moins de 18 ans du si daw mais nag ki yorub saretam liggéey ko amul règlement bu wane ni saret boo ko dee wut lii nga war a am wala boo ko yoree fee nga war a bokk su la neexee mën ngaa dem bokk ci garas su la neexee man ngaa am sa saret yor ko di ko dawal ci dëkk bi te doo bokk ci benn garas su la neexee tim gone goo romb gu të ay bokkam wala gu dawee ci daara nga gis ko jox ko sab saret loola kenn mënu ci dara bu ñu xoolee comme sa mooy de 18 ans boobu noonu am na solo mooy fi may waxee mooy da gis comme tey jii mag moo xam ne yore ab saretam mais mu daw ba génn garas bi woo xale bu ndaw mu yóbbu client yi bu ko defee loolu noonu ndax te xale yi amuñu expérience ci sareet ba nga xam ne duñ xam dafa ginnaawe wala du fa dafa kaname su ko defee nag euh, ànd si leen boobu ak buur leen ñoom xolub yaatu pour wax leen ko duñ ko am bu ko defee nag loolu mooy waral ñu leen di ñuy daanee mag ñi ci sareet yi ak façon bi nga xam ne tamit ñu dikk ci façon bi nga xam ne tamit xale yi ñoo ngi koy laajee paas yi ce que tamit euh, loolu see normal laajum paas mi ni ñu koy laajee ba nga doonee gone war a jàngi jàngi woo say sang njaboot part de responsabilité bi da koy partagé benn bi mooy jëmmi borom saret bi nga xam ne moo jël xale bu ndaw jox ko saret benn part de responsabilité moom ca la bokk beneen bi ci des mooy parent bi war a yar doomam jàngaloo ji ko alxuraan ba ko muy taxawaalu ba tëkko ba ñëw ci sare bi mhm. beneen bi ci des mooy part de responsabilité bi bi état bi wala autorité bi war a taxaw ba moins de 18 ans yi wàcc saret bi mhm. kon ñetti part de responsabilité yëpp bu ci ne assumé ne diggante ki yor saret bi te moom ko te jox ko gone ak ki jur doomam war koo mën a yar teg ko ci yoon ba ko mu dem ca saret ya ak état bi mën a génne moins de 18 ans ci saret bi ginnaaw lépp mi ngi ci am nag problème bu mën di am di accident ci wàllu xale yow ma moom saret bi saa su accidenté yow boo ñëwee doo wax premièrement li ngay wax dañ naan la kii nga jox saret bi ab tout pour yorub saret mhm. du ko war a yorub saret lan la njëkk wax mhm. premièrement bu fekkoon dañ laa tooñ sax dèjà yow yaay moom tooñ nga mhm. kon dèjà jox kale saret danger la bu mag la boo xam ne képp ku koy def ku ne yaa ngi def loo xamut ndax yor matériel boo xam ne lu mu néew néew néew néew lu mu néew néew néew dana mat six cent mille lu mu néew néew dana mat 500000. nga jël ko jox ko gone gu ndaw mu génn fi dóoral la ko ci dara mbaa mu yàqal la ko. Mhm. nga dee ni kan nga ko def defoo ko ña ca yëg sa bopp nga ko def ndax su ko dóoree ci dara mbaa mu yàq ci dara yaay fay boo ko bàyyee yow boo ko yoroon man mën am yooyu yëpp du ci am kon nanu fexe ba biir Touba nga xam ne tey boo ko dee xool li fi ne ci saret kenn xamul nu mu toll muy sart fas di saretu mbaam lépp li muy bon bon am na sax ab organisation bu ci ne ndax boo leen di xool ko ñi ci ëpp bu ñu doon téeméer juróom-ñett fukk yi ñu ngi jóge ci ay garas ay responsable jiite leen kon ñooña normalement ñi ngi ci aw yoon mais ka nga xam ni kenn responsabilisé wu ko te mu ne ci kaw yoon wi te di liggéey comme ni ñee di liggéey problème yu bëri di am ci lool lay am beneen bi ci topp mooy li jëm ci wàllu sarti mbaam yi parce que boo dee xool xale yi li ci ëpp sarti mbaam yi lan nekk parce que moom moo gën a yomb mais kii moom yombut pour xale di ko yor parce que kenn du ko joxe kon loolu li ëpp doole mooy ñu fexe ba gone yi mat a mat a jàngi demu jàngi gone yi mat a jàngi dem jàngi ah, xale yi mag ñoo xam ne di leen ñaanal yenn kàddu yi du ci dara ndax mbir këtt ba këtt ay bokk mbaa mu dawee ci daara ba ñëw boo ko ñaanalee du ko wàññi dara dara la ko dul jariñ yow koy dangay fexe ba yow muy kilifa doon homme de responsabilité boo rombay xale bu bu yorub saret te mënut ca saret ba dara nga bañ caa dugg waaye fi toll nii booy xool booy xool li ëpp doole li ëpp doole ci ñoom li ëpp doole ci ñoom saret yi ñuy jël di ko jox ay gone ñi ci ëpp doole maire yi ñoo ca ànd ak ñoom ndax fi ñu toll mag ñi sartu mbaam rek la ñu dugg mais nag bu fekkoon client yi am nañ responsabilité bu toll ni bu ma gisee gone bu yorob sart ma bañ caa dugg bu yàggee gone yi bàyyi sart mais des fois da ñëw ci lii bi ñu ne la saret bi ñoo yàpp loolu doo ci mën dara dugg rek ngay def da gis sax sart bi nit ñun mag a ko yàpp génne ko gone yor ko loolu lépp am na ci boo doon ñu wax tey garage maanaam garage bu nekk ñaata saret ñoo fay nekk ci xayma xam nga wala amut euh, lii. garage moom. Mhm. boo demee ci règlement intérieur bi. Mhm. amut fu ni la garage dafa am limite. Mhm. garage amut limite moo garage moo garage oto yi ñoo yem. mënoo ni sama garage boo amee cinquante saret damay arrêté. dafa am règlement bu garage bi di tënku. ci képp koo xam ne am nga ko te man ko nga ñëw. mooy dan ni statut la fay am mooy dan naan gare bi ku fi ñëw da ngay adhéré temps boo adhéré temps danga am tablo boo fi nekkee tim nii leen fi nekkee ku fi daw nii nga fiy dawe képp koo xam ne def nga fi nangam nangam la lay def ku fi def nangam ñu def la nangam loolu mooy règlement yi gare yi am règlement boobu nag soo ñëwee man ko boole ko am koom bi ñu war a def bi nu war a jox ci ci adhérent bi su boobaa bokk nga kon amul limite bu naan garage bi dafa war am cinquante sat wala soixante sat ah, wala mu amee cent ah, amul limite amul amul limite hmm. ndax garage amul droit di ko tëj li ngay man mooy adhéré da nga joxe 100000 wala ko adhéré da nga joxe 50000 ku man 50000 te la statut ba ak la sa règlement santaane mu man ko su boobaa dafay am day normal mu bokk ca lan moo waral bu événement amee ngeen di yokk paas yi rawatina màggalu Touba ngeen xam ne yéen da ngeen cee waroon a participer mais dañuy gis ne yéen bu màggal jotee da ngeen di gën a yokk paas yi. xam nga boo gisee problème mu événement ñu yokki paas fépp la parce que bu boobaa ligne bi nga doon jël da nga koy dootoo ko am. ligne bi dana xat bu dee ci comme ñi dëkk ñi ñi ci biir marché bi ndax man mii di wax ak yow toog fii di wax bu màggal jotee marché bi dootuma fi dugg damay arrêté sama gaaras ndax amatuma fu ma liggéeyee damay delluwaat sama kër jéem a xool nu may dalal samay gan bàyyi leen tasaaroo ci dëkk bi su boobaa benn organisation amatul kenn ku ne day seet fu mu bay boppam bay bopp googu ñuy bay seen bopp nag man ngaa yabe fii jëm gaaras di jaari 28 xam nga ku yabe fi war a dem Daaru Xudus jaari 28 mënut a fay fukki dërëm kon lii programme dëkk bi changé gan ñi changé liggéey dëkk bi changé dëkk bi am embouteillage fu mu rek changement dana am ci paas yi ñu doon liggéey ndax yoon yi nekkoon dafay changé gaara si ne woon am na ñoo xam dañ fay jógee dootuñu fa ne ndax dootuñu fa mën a yegg ndax képp koo xam ne yaa ngi ci biir marché bi mhm. am na màggal bu jotee dana toll foo xam ne moom ku ne ci biir marché bi da nga koy génn gaas bu ne ci biir marché da nga koy génn ne ca biti te boo yebee ko wala ñu teg fa loo xam ne doo xam fa ngay jaar da wëri kon loolu mënta nekk ak paas ba nga yoroon nga di ko paas di wëndeelu ba keroog nga yóbbu client bi fa mu kon événement bi moo woote loolu il faut ñu def ko boo gisee yokkum paas ci oto ni mu mel di yoor yi del des fois tamit ñuy réeral gan ñi nga gis koo xam ne xamul fa gan gi jëm mu ne xam naa fa ngir bëgg a lekk paasam rek noonu dafa am ñoo xam ni man nan laa jël sax te xëy na xam nu ñu dëkk bi am na ñu ne ci dëkk bii def fi juróomi at yoonu daaru géem boo leen ko génnee mënuñoo ñëw daaru xudus xamuñu fi dara ndax nit bu juddoo dawut fu dul yoonu daaru xamul lu dul yabe marché kaat dem yoonu daaru wala mu yabe daaru xudus dem gaarasu daaru musi soo ko yóbboo ngiraaneen mu réer su bëggee daw uh, usine ak looyeen réer su bëggee daw jàkkee sëñ Mbay Njaay réer su bëggee daw marché bu bees wala wala mbaaree réer kooku fi mu woon rek la xam saa soo ko fa génnee nag ba koo yóbbu laajte dong lay man da tey bari ñoo xam nag dañuy yaakaar ni sar Touba moom dëkk bi ñëpp leen min sar yi par secteur la secteur bu ne am na ñu fay daw am ñu leen yor ñooña ñooy xam côté booba soo changé dem ci beneen côté li gën mooy boo ko xamut nga ni client bi xaw ma ko wala soit boo ko xamut Touba moom réer yombu fi ndax saa soo laajtee ñu teg la ci lan ngay wax ci actualité li nga xam ne xaw na bëgg démb Madiane gii mi boroom sareet bu ñu rey lan moo koy waral boroom sareet yi foo leen fekk ñoo ngi xeex ñoo ngi tàng tàngante dënn xeet boobu nekk seen xol yi lan moo koy waral lan moo koy def ci ñoom. xam nga dafa am loo xam ni. leen ni ku yokk cere dolli ñeex. ban fi nekk ay 2000 ba fii ñu ne nii changement dafa am ci sareet ndax sareet lépp a ngi ci ku nekk a ngi ci loolu moo waral saret soppi te tim saret na meloon bu njëkk ban man koo régler teg ko ci yoon nekkatut léegi foofu léegi saret développé la def ndax fi mu toll commerçant ak ñu yor xaalis ñëpp kenn ku ci ne ñi ci ëpp boo leen xoolee ku ci ne am nga saret sa kër te saret da ngay toog ci kër xëyee fa ci biir kër gi saret jóge fi xëy liggéey taxi jóge fi xëy liggéey car urbain jóge fi xëy liggéey car inter urbain jóge fi xëy liggéey lépp ci genn kër kon nga xam ne kon saret am na valeur normalement ban heure ngeen war a xëy ak ban heure ngeen war a wàcc heure xëy moom mhm. nekkut ci jëmm kii xëy mooy ndax kii nga yor ak jur la. Mhm. xam nga lu man ak lu mënut. Mhm. am na waxtu woo xam ne soo ko dawalee tey bu subaa doo ko dawal kon yow mi yor fas yaay xool li ngay war a xëy ak waxtu wi nga war a wàcc mais képp ku la mën a déchiffrer heure dana juum ndax am na ñoo xam ne dañuy teel a xëy suba teel liggéey li liggéey dem ñibbi am na ñoo xam ne bala ñoo xëy dañuy yeewu régler seen problème ci kër ga ba pare door a génn dem liggéey suñ liggéey bu seenu fas sonne ñu dem ñibbi kon heure xëy ak heure liggéey bokkuñu li ma la ci événement bi fi xewoon muy événement bu nu naqari boo xam ni bu nu metti la boo xam ni vraiment képp kuy dawal sat ci Touba metti na la ndax mosu fee am ba ma xam ba ma ba àdduna sosoo ba nëgëni ma ne ci sar di ci yëngu nga xam ni presque bu tantey bu may da nga naan ci vingt ans la fii ni toll nii loolu tey laa ko fi mas gis maanaam borom saret bu rey borom saret tey laa ko fi mas a gis c'est la première fois li ko waral nag mooy li ëpp ci liy dawal saret ak li ëpp ci liy dawal saret ni mu toll daanaka liy taxawaalu foofu la noonu la toll ndax léegi day secteur boo xam ni képp ku daw man nga faa ñëw ku tël say bokk mën nga faa ñëw képp koo xam ne xalaat nga ni aussi tam amoob liggéey man nga cee ne waaw kon loolu moo waral lii fi xew di fi xew mais loolu moom autorité bi ñoo ci war a jël seen i responsabilités yi bopp. xalaat ni képp ak coxeur yi que waruñu cee. non coxeur bi li mu man mooy li mu géré waaye ki nga géré wut mu ñëw di toog ci garage bi du yow yaa koy ki ne ci sab tableau di liggéey warab sab di dem ak dikk kooku tël ta xeex ba jamantey paak mais nit dana ne ci àll ba yur sat yuru dara ñëw di provoqué ñooña ndax ki xeex k rey ki rey ak ki mu rey ki mais ki ko rey yurutub dafaa nekkoon. kon loolu mooy li ma la wax mbir mi dañuy xool ni bokkut ci mbir mi ñu génne leen mhm. ndax nag soow moom bu ca wen duggee boo gisee xam ko tey garage boo gisee ay responsabilité ngi mhm. responsabilité boobu ña boo ñëwee ñu wax la kan la ndax bi nga ñëwee fi mën nga laajte dañoo xaar ba nga gis woon la ñun la maa ngi nii kon fu ne am na responsabilité ba nga demee fële responsabilité ba la tax ñooñu mënuñoo wax sëwru mooy joxe engagement responsable ñoom duñ ko wax fii nag man je suis le responsable am na loo xam ne du ma ko def boo doon ñu wax tey euh, ndax yaa ngi ciy bopp am nga ci yu bëree ci méccam sareet mi lan lan man daanaan nee naa la bu ginnaaw wé bu bu yàlla wéyee mhm. ak yonent bi ak Sëriñ tubaa mhm. sareet moom li ma ci am bëriwul ñu ko ci am yënga ci sa bopp bu baax romb naa foofu mhm. ndax man ba ma xamee ba nëga ni jóge ci li ma doon def ci sareet laa ne lu ne def naa ko ci yor naa ko amal naa ko sa bopp yor ko ba jaay ko ba bàyyi ko duggaat ci ba amaat ko ba fi mu toll nii je suis le responsable fii ma ne nii responsable laa fi. Mm. ngir lan ngir xam gu ma xam saret yàgg gu ma ci yàgg tax na fii ma toll nii man saret li ma ci xam bariwut ñu ko ci xam bariwut du ma ne nag am na ñu ko fi xam mais képp koo fi dégg ñu naan yàgg na ci saret wala doon na responsable saret fekk naa ko ci te bari na tim lu ma xeex ba saret am ko ànd kooku nit di ko xeex ba saret am ko tey mm-hmm. mbir la moo xam ni sarta ma ko may tey kii kii leen fi yabal tey bu ma xamee ba ma yabal ci leen rek la ma gis. gis na ma ci xeex saret gis na ma ci toujours sart am jàmm ci laay xeex. gis na ma tim ci sart laay dund. mbooloo mun man daji ci àdduna tim représentant saret saret laa fay doon. du ma dem ci menn mbooloo doon fa représentant lenn lu dul kon li ma am ci saret dund ko ci saret bar nañu ñett saret te amuñu ko ci li ma ci xam tam bari nañu fi ne te xamuñu ko ndax yàgg gu ma ci yàgg ndax dañ ni nit ki lu mu yàgg dund ko secteur bi daf koy xam te secteur bi ma ne nii dama fay yàgg trop te bari na aussi lu fi jaar loo xam ne lépp fi la ma fekk. mais yéen seen gaz bu ñu seetloo dafay faral di am nu mu mel ci wàllum set gi day mel ni day faral di des ba fu ngeen nekk des fois dañ leen fay jëlee pour ngeen demaat feneen di tuxu lu bëri lu ngeen tuxu ndax fi ngeen di nekk set gi day xaw di des est-ce que jaaduwul tamit ngeen ngeen xaw a am nu ngeen def ci wàllum set gi. ñoon fi ñuy tuxu saret set ak taq du nu fa tuxal ñun fi nu ne nit ñaanu fay fekk ba nit ña jël fa nu ñu jël déplacé nu fa ndax ñun ba nu ne fii ña ngay woon biir marché foron di yabe banque ba di génn di ñëw booba dara nekku fa ñu dem ba foofa avancé ban génn ñu fa andi ñu fii ci caarin buntu caarin gii ñu jóge fa ba fi ñu toll ni ñu ngi fii jàkkaarloog caarin kon ba nëga ni fan ne woon ak fii ñu ne dara jut soppi ko wuti mais nag marché bi moo développé ba jël loolu mbedd bi ñu taxaw tey di wax mbedd la gis nga tey ni mu mel lépp ay centre commercial la dañ nag borom sart fu mu ne jaaykat yi di ko fa fekk jaaykat yooyu ñooy dema dema dema dem ba jël place am ba mu nekkoon mais ñun sart fu nu ne fu ne am nañ ku koy toppatoo am nañ ku koy radu am nañ ku koy bale te tim li ñuy taqal du du mbalit mun yor mun ndax diggante mbuusu perméable ak i carton ñun suñuy fas nefere lañ war a def mais mbuus ak perméable bu ñu fa fekkee ak i carton ñu nu nekkal ñuy bale ñooy bale di ko puus ci fi du ne. lan ngeen soxla comme ça tey jii ñi leen ñi leen di dégg te bu ñu leen doon jàppale ci lan lañ leen di jàppalee lan ngeen soxla actuellement. li nu gën a soxla mooy formel ñu ñu yor muy une formation. ci secteur bi ndax secteur la boo xam ne ay gone ñoo ci ne te gone yi ci ne formation dafa baax ci ñoom ban xam leen yor la mu doon ndax danga bu leen formé ci li nu yor ban qualifié ci sunu génnee mën na noo yore oto mën na noo yore leneen kon formation boobu mënu cee ñàkk fexe tim ba nga xam ne si xale yi ñuy coow ci saret mooy de 18 ans gone yi ndaw yi am 7 ans autorité li nu ba génne leen ci saret parce que lu xew boo nuy xas foofa ngay teg sa baaraam waaw saa soo ñuy xas rek foofu ngay teg sa baaram kon loolu bu amoon luñ ci dimbali la ca gën lay bokk fexe aussi ba organiser nu ba piss yi ñuy ne ñu mën koo moomal suñu bopp ndax piste yi ñuy ne yenn yi volontaire mooy tax ñu ne fa maanaam ñafe ban bàyyi ñu fa waaye lenn lu autorité man ci piste yooyu amul maire yi mënulaat wax ne la maa dagg garas bi jox borom garas bi am nañ ci sañ-sañ dañ fay ne rek soit ba ma man faa yàgg ma ñu jëliñu fa mais mairie amuñu responsabilité man ne nu fii ñun ñoo leen ko jox kon amuñu sit bu disponible boo xam ne dañ naan bii ñoo ko moom sañ nañ ci lii sañuñu ci lii dañ fay ne ba mbir fekk ñu fa rek ñu jëlee ñu fa mbaa ñu tuxal ñu. lan mooy sa kàddu yu mujj. kàddu yu mujj mooy di sant képp koo xam ne yor nga saret di ko dawal te ne ci dëkk bi ak foo mën a bokk di sant ñi ma bokkalub liggéey nga xam ne ñoom laa bokkal ab liggéey te ak ñi nga xam ni yàlla dogal nañ ay responsable yi gaars lan te ma doon seen njiit ndax fi ma toog di yow am naa 32 gaars yoo xam ne man maa leen yilif maay seen président ci GIE bi ñu yor di liggéey kon mel na ni bëgg nañ formation bëgg nañ leneen ak leneen ak leneen aussi fekk xeex nañ ba saret li ñuy gàtt gat ñoom am na ñaari conseil municipal ci biir ci biir municipal bi municipalité bi xeex nañ aussi ba lépp lu ñuy def ci saret te muy jóge ca kaw wala muy jóge ci suuf danañ ko yëg des nañ ko wax am nañ disponibilité pour ku jàppale ci côté yëpp nag ku ci dimbali nag ñu jël nag nit lañ ñoo xam ni ay way néew di doole ngi ci lu nee ngi ci mais nag am na ci ñoo xam ni respecté nañ li ñuy def te bëgg nañ ko ndax am na koo ci boo ci gis muy dem wala mu romb la di dem na nga xam ni soutien famille la nit la koo xam ne yor na jabar yor doom yor baay kon soutien famille la romb di dem kon ku mat dimbalee ngoog ku mat jàppale ngoo ci côté yu bari nag mais nag amuñu nag benn jàppale boo xam da naan jóge na mairie wala mu jóge feneen ñëw ci saret amut wala boog gisaguma ko lit état dafa ko néew fekku ci mairie te nag ñu ngi fay suñuy droit municipal ci biir mairie bi. yéen a ngi joxe ñu ngi fay suñuy droit suñu devoir a des. ndax nit ki bu fekkee amul lenn loo xam ne war naa mën a taxaw xar ci tànku tubéyam defal la ko amul identification bi ñu fi tàmbali woon rek ngir lii xewoon dootu fi xew mënuñu koo yeggale. kon nanga xam ni am na lu des ci organisation bi nañ ñu ci dimbali problème mu sécurité bi tam ñu koy demandé tàmbalee ko te préfet ñëw ci sous-préfet ba wàcc ci maire ba ñëw ci autorité yi ñu xam ne sécurité war naa mën a am ci sart yi ci képp ku bokk ci liggéey bi ñu sempi la. ñi ci bokk ñu bàyyi leen ñoo ngi leen di sant yéen di leen gërëm tey ñaan ci barke Serigne Touba yàlla na fi sëñ Mountakha yàgg te nu yàgg fi ci barke borom Touba. mbokk internet yi ñoo ko gisandoo macha allah ci euh, sëñ Seydina Ousmane Sall euh, mu wax lu am solo ci métier sareet euh, di leen wax nag seen émission bii di daan doole comme niñ ko baaxee di defee saa su ne bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn kenn ku nekk rek ci la ngay liggéey incha allah boo ñu ko waxee dinañ la ca fekk si ànd ak seen site bii di 24 ak xam naa ñoo ngi jox i émission jëf